arrière bu dëgër waay. arrière bu dëgër. ndeysaan ñëpp ko namoon. jërëjëf ñu am liggéey ku nekk nga toog a toog ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi namoon na nu mu nii làmb ay weer ñu ngi nii yoo xamante ni gisante wuñ waaye bu ci nekk sa xolal yi sa xolaloo tey jii yàlla dajale mu fi ci événement war a am ci atum deux mille vingt et un événement boobu nit ñi balaa Infos taxawoon mu war a dox diggante Modou Lo ak Ama tey jii di jàkkaarloo bu Modou Lo war jàkkaarloo ak la presse wax leen ci combat moom ñu neen ñoo fi nekk waaye nag dafa am lu xew laataa ñuy toog fii moo tax maa ngi ñaan ñi toog ñëpp ñu toog ñu taxaw ndax am na kenn koo xamante ni dafa fooloon ci ñun mu di Balla Gaye numéro 2 numéro 1 mu di Balla Gaye numéro 1 nekkoon suñu mag nekk papa ci ñii nekk xarit ci ñii nekk àndandoo ci ñii ku mu entraîné mu nit sa bàyyi la ndax la làmb famille yàlla dogal na jóge na kon dañuy àndandoo ñu jóg taxaw ak kenn koo xamante ni bu ñu waxee adduna ci wàllu sport ñëpp tudd ko te xam ñëpp mooy événement bi ndege mi sori noonu waaye mbokk sportif mu di Maradona kon mbokk yi ñun ñëpp nañu jóg taxaw ñu def une minute de silence ñaanal yàlla leen yàlla xare àjjana mbokk yi ñu ngi leen nuyu di yàlla war a ñëw ci waxtaanu làmb waaye xam ngeen am na lu xew ci làmb li xew ci làmb mooy CNG moo jiite woon avec Alioune Sarr comme président le gouvernement du Sénégal jaaree na ko ci le ministre des sports Ba jël décision nommé beneen groupe de travail ñu remplacer groupe ANSAR di kaw CNG Birane Sène jiite kon balaa ñoo commencé waxtaan dañ leen di ndax ñun làmb la ko xam làmb la ko xam dinaa ko mën kon loolu moom nga xam ne tey jii fan la ñu gëlaasee jiite leen noonu ànd ñun ñëpp ñu ñaanal leen yàlla mu réussir mission bi leen le ministre des sports dénk te jëlee ko ci président de la république Macky Sall kon gëlaasee ak groupe bi mu àndal yàlla mu réussir seen mission réussir. seen mission bokk na ci ñu fi daje ndaxte pour le coup mooy accompagner CNG mooy accompagner mbër mooy accompagner lamb bu promoteur dugul lamb du am kon un grand promoteur daan bëgg lamb depuis quatre-vingt-dix-neuf son premier combat événement la woon mu doxoon diggante Mor Fadam ak Mohamed Ndao Tyson mu amee woon ci stade Léopold Sédar Senghor wala ci stade Dembourou stade Dembourou boobu ba léegi muy tëgg ay événement bii yoon nag événement bi du moom waaye lépp di ko laaj une ko groupe bi ñoo ko jël fës ko yéene taxawal groupe boobu coordonnateur bi mi ngi ni toog di raay ma jóge nguur lépp loo xam ne jëm na ci combat boobu mu war ci taxaw. taxawaay bi nga xam ne moom la ci Luc Nicolas daan taxaw bokk na ci Moustapha Bey numéro un Tigre de bokk ci ñi nga xamante ni ñooy jàppale Luc Nicolas Impôts bokk na ci man mii ngeen gis lii depuis quatre-vingt-dix-neuf ba léegi man ak moom ñooy ànd combat bu fi tëddandoo ko ànd tëddandoo ko ba tey bi ànd ci événement sportif bu mel nii kon bokk balaa ñoo def dara ki nga xam ne moo fi représenté Luc Nicolas Impôts di raay ba moom la ñu jox kàddu bi mu wax ñaari baat balaa ñu jox li nga xamante ne ni moo di Modou Lo mu waxtaan ak presse bi waxtaan ak yéen ci wàllu la raay ba. jërëjëf euh, jërëjëf Bécaye euh, maa ngi nuyu d'abord saal bi yëpp euh, rawatina aussi sunu mbokku journaliste yi nga xamante ne ni tey jii macha allah ñoom yëpp teew nañ fii di leen nuyu également ci turu Cheikh Fallou Luc Nicolas. di wax ne dëgg la combat bi taxaw na depuis yàgg na mais boobu ak léegi yàlla dafa dogoon contexte bi nga xamante ne nii moo amoon tax na combat bi kenn mënu ci woon wax dara tey nag ñu bëgg a door li nga xamante ne nii mooy démarrage u bi moo waral tey teewaay bi lu leen di wax rek ci wax ju gàtt ne leen li Bécaye wax léegi dëgg la lutte depuis 1999 mu ngi ci làmb presque vingt ans parce que daaw rek la fête vingt ans ci làmb ji muy koo xam ne nii donc nit la ku am expérience ci li nga xamante ne nii mooy liggéeyu làmb di leen wax ne combat yi nga xamante ne nii moo ñu fi tax a teew tey muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu bëgg a xamal presse nationale bi fi teew ak presse internationale bi yëpp ne leen dinañ def combat bi combat boo xam ne dina doon combat boo xam ne dimension internationale lay amee euh, di wax rek ne da ngeen ci bàyyi xel parce que li Bécaye wax dëgg la 2001 la ñu tuddee li Nicolas le promoteur des grands événements depuis boobu ak léegi gis ngeen ci ci wàllu innovation taxawaay bi nga xamante ne nii moom la am ci wàllu làmb combat bi nag boo visité histoire làmb presque dafay bokk ci combat yi nga xamante ne nii depuis ci Abdourahmane ci Souley doy ci Mbaye Guèye ci Robert ci Double Less ba tey fii ñu agsi combat bi dafay bokk ci combat yi ci gën a mag parce que dañu boole ñaari mbër yoo xamante ne nii non seulement ay xaleel lañu mais dañu am gannaaw kaar allah ba pare tolloo gannaaw donc daal ci wax ju gàtt. di leen wax ne Luc Nicolas Enco comme li mu leen tàmmaloon rek toujours comme d'habitude muy Sénégal di leen defal ay événements yu mucc ayib di leen wax ne combat bi incha allah dinañ ko def événement international ci kàttanu yàlla di leen gërëm di leen sant. jërëjëf loolu kàddu ni mooy coordonné lépp loo xamante ni ci ay événements yu léegi nag mbokk yi. kàddu gi dañ koy jox le des arènes di Modou Lo ginnaaw bu ñu ko nuyoo ñaanal ko jàmm yàlla may ko bopp ba keroog nga xam ne dina comprendre ba lu weesu sax comprendre bi jeex yàlla defal ko jàmm mu doon un grand champion am jaar-jaar ci làmb doon xale bu dugg tax na xale yu bëri bëgg làmb bi mu ciy dugg doole di ñëwul noonu waaye fit wër toolu woon na wala mu jéggi dayo am fulla am fay gis métier xam ni mooy gagne-pain mu respecté ko ba yegg si fi ci yegg si tey kenn xalaat su boobu gis dina ñëw mu nekk roi des waaye jom moo koy maye fit moo koy maye bëgg-bëgg moo koy maye ak ngëm li te boole na loolu def ko ceinture takk ci ndigam mooy Senghor bi nga xamante ni moom la mbër bi yor saa su ne Senghor boobu Senghor jom Senghor fulla Senghor bëgg moo tax ñu bokk jox kàddu bi buuru Sénégal nga lay dégg adduna mi ngi lay dégg ndaxte tey jii li ci camé ci caméra ci événement làmb mën nañoo wax c'est la première fois bu mm-hmm. leen lu ni mel am te yaa ko waral ndax fi nga jaar ak fi nga yegsi ñii nag say xarit la say mbokk la say ànd la ñii ñoom budul ñoom yéen ñi du ngeen doon dara ñoom ñi lépp ñoom la foo toll ñoom la ak mu nit mën a mel rek ñoom la kon ñu ngi leen di gërëm encore une fois di leen remercier ci nga xam ne moom ngeen teew on est fier de waaw salaamaaleykum dañuy sant yàlla julli ci Yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal suma papa bi jiitu yàlla yërëm ko xare ko aljana moo ñi fa fekk ñëpp. comme nu ko père Bécaye waxee di ñaanal aussi suñu père Balla Gaye xam ni làmb ñàkk te làmb yëpp ko bokkoon di ko ñaanal moom it fu mu jëm gënal ko fi mu jugee suñu waajur des fi yàlla may leen gudd fan ak weer bàyyi leen suñu kanam ba suñu yéene ci ñoom yàlla mottali ko waaye di nuyu d' abord journaliste yi fi teew yëpp parce que père Bécaye wax na ko te loolu la ñëpp remarqué wax dëgg yàlla kamera yi ma fi gis yëpp de est ce que mos naa dugg ci plateau gis ko macha allah leen wax namoon naa leen lool. xam naa it namoon ngeen ma waaye yi fi jaar yu bari moo taxoon jotaay yu mel ni mënul am di sant yàlla nag ba ñu dem ba affaire yi reprendre di wax nag amul naagu Covid ñëw na fi xam yàlla di ñu dimbali ak suñu médecins yu xarañ ba tey ñuy wax mu ngi waaj jeex waaye tant que ñoo ngi dégg benn cas bu ñu naagu dañuy jël mesure barrière toujours di wax tamit dafa am lu fa xew encore muy mbëkk mi waaw suñuy rakk suñuy mag suñu Sénégal bari des loolu ñu leen di ñaanal yàlla xale leen àjjana parce que rajo ku ci ne da ngay jógee teraanga moo la taxoon jóg say waajur waaye tamit dafa am lu parce que am na li nga xam ne bu demee bañ koy léngale parce que ñi dem teraanga moo leen tax a jóg comme ni ma ko waxee li ñuy def ba yëngu a xaar rek mu jot a jaram xalaat la métti la waaye ñu ngi am responsabilité bu bari benn yu bari am na ci responsabilité muy nañu bàyyi am faj ñi nga xam ne dañuy ne ci kër am am léeg sa borom nii sa borom ak borom la rek mën na pousser ci zone bi dugg ci li nga xam ne waru ci dugg parce que ku ne xam na ñuy dem ci gaal ay millions kilomètres loolu parce que képp kuy mag ku ne isam la tekki teral say waajur teral sa bopp moo la tax a jóg mais waajur yi nañu bàyyi xale yi ñuy wax yooyu moo leen tax dugg ci yu bare bare état bi tamit góor góorlu góor góorlu ci emploi jeunesse bi parce que jeune mooy yor réew ëllëg dañ ci war a taxaw xam nga xoolal leen ay liggéey am na ñu fi yor seen liggéey amuñu sax fu ñu ko defee tey yu bari loolu dañ leen ñaaxat ñaaxaat état bi lu doon def ñu góor am fii liggéey que juddoo fii màggee fii tekkee fii am na te am na ñi xam ne ñu ngi fii fii la ñu nekk mosuñu dem bitim réew ku dem bitim réew loo indi lu bari bari ñoom ñoo lay wecci kon tey juddoo fii màggee fii tekkee fi am na waaye ku nekk fi yàlla dogalee sa sa sa sa sa tedd ñu bàyyi ko xel xam nga yenn risques yi c'est métti na trop trop di di wax encore di wax. jeunesse bi. waaye jeunesse bi encore toujours rek parce que xam nga tey ñun fii la ñu nekk yàlla dogal na yi sax la ñoo ngi dem bitim réew tukki te pourtant tukki am na ñi nga xam ne dañuy tukki mais lu métti métti métti la ñu daj foofu du boo tukkiwul rek sa dara du baax ñu jéem i sam lax takkaat tuba yi xam nga. lu ñu yor fii lu mu ndaw ndaw gis nga góor ci góorgóorlu ba dajale ay millions wala ay cinq cent mille di ci passé gaal loolu loo ci def liggéey ci fii mu nekk dara mu nekk dara ba tax na xamoon nga nañu bàyyiwaat xel gën góor góor bu baax di ñaanal encore ñu jiitu yàlla yërëm leen xale leen jën na nga seen waajur yi fi des yàlla taxawu leen ba bëgg-bëgg yooyu ndaw yi amoon ci defal leen yàlla wuutal leen leneen waaw loolu la wax appui pour l'état sur félicité d'abord président CNG bi lu ci nekk bégaay jaar na ci mais dañ koy dañ ci kiiwaat rek comme lii gëj na am dañuy profité occasion la ci ñun président CNG bu bees bi muy Bira Sène di ko ñaanal yéen bi yàlla na woyof li ñëpp di séentu ci moom muy axlu làmb yàlla na woyof toll président Alioune Sarr tamit président Alioune Sarr it xam nga énergie am coonoom def na ko ci 26 ans yi mu fi nekk moom bi di ko ñaar mu am leneen leneen lu mu gën Père Balla encore di ko jaale waa Guédiawaye yëpp di ko jaale ak làmb di ko jaale Balla Gaye numéro 2 am demoon naa fa ak doomu Youssou Ndour di ko jaale Sénégal yëpp waaw xam naa après ñu xaar incha allah question yi di nuyu d'abord xam nga waaye Safa énergie ak suma xarit yi ma àndal la ñëpp ak ñëpp ñuy seetaan partout dans le monde ñu leen nuyu bu baax a baax dañu kon mbokk yi léegi dañuy ñëw biir question yi bind nañu journaliste yi nga xam ne ñoo war a wax mais ñun bind ñëpp bàyyi na mun ñoo ñëpp lay wax fii la ñuy tax te am na question yoo xam ne sa borom posé la bu mu posé sa question toog xam ni posé nañu sa question parce que question yi yu ci bari ñoo ñëw moom ñoo wax dañu. salaamaaleykum waaw bu ñu ñëwee ci question yi boo ñëwee bu Dakar ak ci moom la ñuy yëkkati wax ne loolu maanaam bu wóor di nga gis question rek di leen seetlu soo yëkkatee rek ci moo la daan leen yàlla père Balla Gaye di ñaan yàlla xar ko àjjana waaye bëgg démb famille famille Seck bi nga xam ne day sëkk làmb ji ñàkk seen doom di ñu wax bëgg Seck ci Grand Dakar moom jël ñu ngi ko jaale di ñaan yàlla xar ko àjjana di jël jaale association des reporters de lutte en ligne di ko teg ci loxol famille ndax tey bu ne gis na si intérêt ñuy toog donc bu ñu organiser wul dinañu yàqal suñu bopp wala ñu yàqal le producteur moo tax ci la ñuy initier créer association bu tudd association des reporters luy naa ni laaj nga di leen tàllal loxo di tàllal loxo di di ko laaj di tàllal loxo amul làmb gépp ndax li ci suñu jubluwaay mooy defar xanaa di laaj benn question rek laay laaj moom Modou Ama keroog bi mu duggee parcelle daan Papa Sow bi ko sama doom Modou Mbaye njëkkee micro dana ko daan naa Papa waaye xiir bi am na ku mu war a Mamadou ne ko xiir bi dal ko moom moomu xiir bi dana ko dal ñu mu ne maam Modou Lo bu ñu màggetoon bay doxee ay beek su ma dajewoo ak moom dinaa fokk ay beekam sànni ko fokk samay beek sànni ko bëri na kon nag dafa mel ni que bëri ak yow lu mu yàgg def. ci bopp bi est-ce que jàpp nga ni que noonu mu ko defee ci bopp bi amam est-ce que mënul relever le défi bi dox sa diggante yow la jërëjëf. waaw buur dama defoo de affaire yi moom jarul yàkkamti puisque lu ñu naan seetu asamaan jarul boo ko tey fas yéene am yeneen cootaay yi nga xam ni man ak moom lay doon tey bu boobaa la baat ak tontu di gën a neex. waaye yóbbante calcul ubbu làmb waaw taxaw fële wax ma koy tontu ah, bariwul njëriñ pour man man dama nekk ci sama yoon comme lu père Bekaay wax yàlla du ñu dimbali ba suñu déwi tey fukki personne yoo taalal micro huit yi boo leen ne Modou Lo roi des arènes ñu ni mënul nekk yàlla di ñu dimbali di ñu dimbali ba yàlla defal ñu loolu ñu koy sant yàlla bu baax a baax ama kooku waxu mbër la wax rek waaw waaye xam na ni moom

bu ñu seetloo révolution bi ngi tàmbali en deux mille deux mille six waaye bu ñu xoolee combat yi ci gën a ci gën a marquant a suñu génération yooyu yaa ngi ak Balla Gaye te ci boobu la làmb révolutionnaire wu dox ak léegi boobu léegi boobu ay xale ngeen woon seen ay mag ñoo fi nekkoon te ñu dem ba génération boobu nekkoon ci suuf ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom ñoo yor làmb te làmb xaw a te tey jii yéen ñi nga xamante ni a nekk ci kaw rawatina yow bi nga xamante yaa yor couronne roi tey par quelle voie de moyen lañu war a jaar pour làmb fi nga xamante ne Luc Nicolaï dañ ko foofu la ko bëgg a yóbbu muy internationaliser ko par quelle voie de moyen lañu war a jaar ngir làmb yegg ci niveau boobu comment faire pour si pour gën a civiliser la lutte comment faire pour gën a professionnaliser la lutte selon toi. waaw waaw li ñuy wax chaque fois rek kenn bëggul mu jébbuloo mu réer sa loxo tey am na fu ñu fekkoon làmb ji mu am fu mu yegg si tey. li may wax chaque fois nag lu ci bari lu ci baari nag noonu làmb koy wax waaye làmb tey violence bu bari ñuy wax ci làmb ba lu ñuy wax lu bari wàññeeku ci woon du ci mbëri parce que li may wax chaque fois gis ñuy ñëw ci ay làmb di ñëw di indi ay ñaawteef ñooñu ñooy dem ci màggal yi ñooy dem ci gàmmu yi ñooy dem ci xew yu mag yëpp ñooñu ay yàqkat la yi nga xam ne yàq moo leen tax a jóg chaque fois waaye man état bi lay lancé waat rek appel deen wax li may wax chaque fois. làmb suñu sport national la li nga xam ne ñun ñoo ko moom tey ñëpp a ci war a jàpp mais rawatina état bi nag li nga xam ni muy moyens yi muy lépp ñoom lañ ko dénk sant yàlla parce que ñoom doon wax arène nationale ñu defal ñu ko waaye dafa may accompagnement yu baree bari xam nga d'abord muy promoteur yi ñu dooleel leen ñu dooleel leen gis na tey ku ci mel ne lig na ko laay ñaataat muy tëgg ay gàllankoor yu ko dal bari na lépp làmb nattum la ñun ñëpp suñ nattu la rek lu ñu dal lu muy métti métti dañuy ñëwaat puisque moom la ñu am mais état moo ñu war a moo war a accompagner promoteurs yi dooleel leen ba tax na tey lii yëpp ci créer emploi la rek tey état bu gisee ki nga xam ne dafay créer emploi pour jeunesse bi da war a jàppale loolu ñoom la waroon mais bu gisoon keneen ki nga xam ni day def loolu ñoom dañ ko war a appuyer ba tax na dañuy wax état jàppaat ci bu baax a baax baax xam na ñu ñëw doole làmb ji ba fi ñu bëgg làmb yegg fa mu kawe sax foofu noonu parce que comme li may wax chaque fois bëgg naa man suñu jarbaat yi wala suñu rakk yi bu ñu ñëwee fekk ay kase 500 millions wala lu ko xam nga ba tax na loolu nag dafa laaj dafa laaj ñëpp jàpp ci ñëpp jàpp ci doole làmb fi ñu bëgg mu yegg fa mu yegg fa donc bi ñu dem ci question yi ba tey Fall du seen ministre donc sama wàllu bopp bi ñu ngi moo ñu leen déggee li may wax rek mooy comme ni ko waxee léegi caméra yi tey macha allah bëri na te tey li nga xamante ni ñooy dégg mu see supporté ma ne ñu jël daal te daal di gën loolu boo ko dégg dañoo see supporté dañoo ci amal ba léegi loolu koy incha allah loolu dana nekk seen xel incha allah waaw waaw di wax ni maa ngi sama supporter ci dara man sax du ma wax ay mbërëg supporter la maa ñoom famille la puisque chaque jour ñoo ngi demalante muy xew muy ngénte muy naqar lu am ñu ngi demalante ba tax na maa ñoom umpalewuñ ci dara man nag dafa ko may xaar parce que tey bu la yàlla dimbalee ba nga yor li nga xam ne ñëpp moom lañ soxla tey affaire bi dafay gën a serré lu mën a serré la mais dafay gën a serré ba tax na xam nañ li ñuy xaar bu baax a baax a baax te ñoo ngi ci lu ñu war a nekk waaw na gaa yi gën a jàpp rek muy fépp fu nit nekk waaw di supporter moom loolu na nga yokk ñaan yi ba li ñu jëm incha allah yàlla defal ñu ci ndox mu sedd buy merci. nga xamante ne moom waaw waaw ñun yaakaar bu ñuy am ci CNG bu bees bi moo yaakaar bi ministre am ci ñoom ba teg leen fii parce que am na li nga xam ni yaakaar naa ni ñoom ñoo ci gën a xam amaana ba ñuy nekk ci làmb ñu nekkul ci woon te ñoom yaakaar moo tax ñu teg leen fii te gëm nañ ni incha allah. dinañ yokk mbir mi parce que dañ ne ko yokk da ngaa wàññi te nag dañu ñëw xam am fu ñu fekk làmb tax na ñu ngi yaakaar ci ñoom bu baax a baax ñu yóbbu affaire yi fi nga xam ni weesu na sax jort yi xam nga dama defaraat affaire yi ñëpp gis ci seen bopp képp kuy nitu làmb daal gis ci boppam loolu la ñuy xaar ci ñoom te yàlla leen ko yàlla yombalal incha allah. waaye innovation comme ni ma la wax rek am na loolu xam ne ñoom ñoom ñoo ñu ko gën a xam xam nga dèjà macha allah. dañoo ngi toog ma dégg ni wàññi nañu yokk nañu âge retraite bi xam ñoo ngi wàññi licence yi ak yooyu noonu yooyu yëpp affaire yu naay sagum la mais daal ñoo ngi séntu daal affaire yi gën a ñoom daal incha allah ba ku nekk gis ci boppam. Abou Ndour Abou Ndour Youssou Ndour record. daawoon na le. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp dama amoon booru question am na vingt victoire ñu ne Ama Baldé ñu ne am na treize victoire ñu ne Modou Lo bëri ak Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène ak Bombardier ak ak Gris Bordeaux ak Lac Lac de Guiers 2 soo boolee VIP yi ci Sénégal menum Tapha Tine dong la la la la mu mënuloo mu bëri soo xoolee en terme de qualité adversaire u Ama Baldé du ma leen def dama leen xeeb waaye amuñu dayoo adversaire u Modou Lô am ñu fa def une démission daal di ne Modou Lô palmarès boolewoo ko ak Ama Baldé Modou Lô adversaire boolewoo ko ak ak ak ak Ama Baldé waaye lamba nit demee dem ba mu Ama Baldé sës mu jël ko est-ce que moo doon d'accord na ci raisonnement boobu met boobu sës waaw merci à <laughs> du sës parce que dafa am la nga xam ni man lu ma yàggoon bëgg la même ba may bëreeg kii nu mu tuddati bombardier ba mu daan dama doon wax chaque fois su ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc ci suuf bëre xale yi. parce que làmb ci yemul ci benn mbër ñaar ñetti mbër ñuy bëree suñu biir chaque fois que ñooñu mu lim tey daanaka ku nekk bëri naa ci moom deux fois loolu làmb rek dañ war ubbi teel a bëri moo tax ñu def ñu mag ci làmb mais ñun ñëpp ay borom lañ mën ak Ama Baldé ñëpp xam nga koo bëri ba pat loo xam ne làmb nawee la fi <laughs> foofu ay borom lañ waaw ma magee bu ma ko bu ma ko magee benn ñaar ci la yem xam nga ba tax na loolu man sama bëgg-bëgg la woon moo tax du ay sës sës dugaluma ci ay jël kii wala jël kii parce que awulu ma yaaxamte yàlla la yaakaar teg lépp ci loxoom mais bëgg ubbi affaire yi affaire yi gën a yaatu loolu moo tax ma ne woon su ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc jël xale yi sëriñ Mass asalaamaaleykum wa rahmatulah wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ak saa fi ñu teew yëpp di ko déglu ñu ko bokkee ñu koy laaj muy caméraman yi muy ñëpp nga xam ne ñoom ñu nuyu ñu toog ci loxol euh, suñu papa bu jëlee di nuyu assistance bi suñu DRD Baye xam nga ñoom Baye Ba l'ensemble bi ñu ngi leen di gërëm président Aliou Ndeye di jaareewaat suma père père Balla Gaye moo ko faral di waxee nga xam ne ni euh, moo ma tàggat si ñu ma nekk tey jóge jox faral ko kon mu ma jëriñ ko ak occasion bi moom yàlla na yàlla yegg si ma ne ci kawam gërëm ko te jégal ko moo ma tàggat ba tey moom lañ fi ñëw rek yàlla na ko yàlla ñu ngi ci barke si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Modou Modou loolu suma question date bi ne 2006 Ama Baldé noo noo am yaakaar naa ne sooy gis nañu li nga def ci parlement Soubassara macha allah génération 97 yow rek yàgg ñu daal ci ñaar sooy génération 92 95 Modou moo ci ñëw bëri jeex ñaar daan kenn kenn daal daan ci booy kay rek 93 la ñëw ci làmb. Euh, Bombardier yaa ngi jaawale date bi yaa ngi jaawale date bi. Bombardier 80. bëggal 2000. waaw waaw non non non euh, heure bi ñu ñëw ci làmb la waxuma heure bi ñu bëri. année bi ñu dugg ci làmb. kay heure bi ñu ñëw ci làmb. voilà c' est entré ci làmb. kay yow ñu ñëw ci làmb. Demba Ndiaye. waaw kay yow 93 la ñëw ci làmb. Bombardier 95. moo tax ma ne ko génération 92 ak 95 yaa ngi bëri ñaar. daan ci kenn kenn daan génération 97 98 dañoo war a jël ñaar daan daan daan daan daan ñoom ñaar kenn ku nekk deux fois kon loolu yow rek yaa réussir ci sa ay morom mu dul loolu félicité bu baax a baax kon ma ne réussir ci sa ay morom loo xamante ni kenn réussir ko ci tubaab kanam macha allah plus de voix euh, ñaar Ama Baldé euh, ngeen yàgg ko nag règlement de compte bi ngeen wax règlement de compte bi bu ma ko waxee 4 euh, juillet 2009 ñu bari dañuy yaakaar ne ci boppam wala man jàppuma ci soxal ba 4 février 2009 bi nga indee bàyyi ko Ama Baldé jëlee jaan bi waaw kenn si jëf yëpp dañoo tax yow rek yaa ko tax gis nañu loolu fekk nañu ko xool Ama Baldé di teg pied droit yow ngay teg pied gauche am na loo am na loo tëri fi Ama Baldé di bëre am na loo xamante ni da nga koy bëre arrange bu Ama Baldé pied gauche ak pied droit bu ñu jàkkaarloo xeex moo loo nag ci préparé Ama Baldé wasalaamaaleykum wa rahmatulah. affaire bii daa bëri ba dama ci fàtte. ma ne ko na mu fàtte daal di ko. ah li di la remercier ci loolu. di la remercier ci loolu. te ba ngay wax léegi père Bécaye dana da ngaa ko léeg-léeg suñu kii li muy wax xam nag bu baax a baax ku yàgg seeraan làmb la macha allah waaye di wax bëri na appui bu nekk am ah ci làmb te chaque jour nga bëri bëri indi gauche mu di droite wala yooyu noonu am na li nga xam ne ñun duñ duñu gan ci làmb daal xam duñu gan ci làmb waaw bëri nañ ci ku nekk ñam nañ ci ku nekk kon ay Ama Baldé yooyu yooyu góobu ni daal ay pied gauche ak droite nañ ci jaaxal. mu ngi wax yàgg nañoo tëkku déedéet man mosuma tëkku Ama Baldé moom moo a yàgg di tëkku. depuis combat bi amoon wuur mu ñëw di mu tëkku xam nga loolu yàgg na lool. waaye nag doon na ko wut lu yàgg. mu jaral ko lu nekk. incha allah loolu mu doon def ba bis ba na fexe ba incha allah loolu mu doon def na ko dëggal loolu rek laay ñaan bu soobee yàlla. loolu salaam. bu ko defee ko defee ah, rek loolu rek la ñuy ñaan yàlla. loolu rek la ñuy ñaan. moom am li ngay rek. ah nee nañ day membre di ñëw de. day membre day ñëw. ah waaye fas muy membre de laaw service lañ bay wala wala ñi yor wala saret yooyu war nañ ko xam fas muy membre laaw service lañ koy laawee du membre de day taxaw. Babacar Sow Sall moom sama journaliste yi ñoom Ndoo. Islam Missel. ah Islam Missel. passeport. c'est bien d'allumer ayca bisimilah. wul ma jaaxle sama boy la. maa ngi lay nuyu ñëpp di nga xam ne à travers le ak a nekk perte gaay suma grand Raay Raay maa am question bi daal la mën na di ko wax leen xam nga loolu laaj léegi la moo tax li mu lay wax daf koy yaakaar suusul kaan yi suusul kaan Ousmane waaw moom la rek. bu dee léegi da ngaa ko rek man moom fi may ñëw mooy lépp laay souvent dafa taxaw nit ñëpp ne moom ak Ama ak ak li ay nit lañ ay xarit lañu. combat bi su ma jumul yow yaa jëfandikoo ak promoteur bi ci li ñu gis ñu dem ba benn moment di nga dem ak Ama wala mu xaar dafa nekk cent millions cent millions ba ñu xëyee ne déggoo nañu bi ñu déggoo yàlla ñu jox Ama Baldé xaalis ñu ne Modou Lô joxul xaalis. ma dajeeg yow campé naa defe naa ne laaj nañ loolu yow nga góob naa comment bi taxaw ndax muur day leer ndax ba biñ koy waxee ni lig ni ko laaj jox na ko xaalis wala joxu koo xaalis wala dafa taxaw ni en tant que rek ni def koo xam ne xaritam la wala muur encaissé na dara bi léegi il faut ne ama encaissé ndax ama gis nañ ko mu encaissé xaalis loolu Sénégal technicien man loolu moo nekkoon sama question mais di ñaan jàmm rek Sénégal di nuyu kan ko weer merci waaw defe naa rek lu ñu boole fii weesu nañu ay jot xaalis ak jotut xaalis lam bu taxaw moo tax ñu teew fii kon tey ay jot xaalis ak jotut xaalis defe naa bariwu ci importance làmb ji taxaw na annonce bi tey mooy sama yëgle ci ñëpp parce que comme boobu ba léegi ñu ngi wax taxaw naag taxawul ak lii am nag lee am na waaye sorte bi tey loolu moo waral point de presse bi ñëw leer askan bi ñëpp ñu doon ab tur leen wax làmb taxaw na taxawlu nag jeexal na wax. jërëjëf. Baye Balla Mbour Bantamba TV. waaw. amul benn problème bi ñu. loolu maa ngi nuyu. maa ngi fekk ak yéen ñu ngi sax ñu ngi presse bi ah. si jullit ñëpp laay ba man koy bu baax a baax jullit yi man damaa ci biir la planète ak xel Sénégal. mooy ñoom question bi ma am mooy bu yàggul dara dañu jëndale mënuloo ak bopp yeneen sax ñu nekk lu bon comparé bu ñu liggéey mu weesu bu ñuy sant donc nga xam ne am na actuellement ñu koy jot. kon est ce que loolu mën na ne maanaam loolu confiance bu ëpp la loolu bëgg ñu nekk uniquement de a yëngu ci loolu ay leer nga mais xam nga yow it waxit dégg-dégg la laaj hmm? waxit dégg-dégg la laaj soo xam bi nga xam ne li ci des maanaam du sax un mois yu mat xam nga te tey ku organiser bisam soxla nga promotion bu doy utee sponsor sponsor yooyu noonu nga defal leen promotion bañ gis seen bopp tey loolu waxin la waxin bi mooy staff bi gis nañ seen mbër ci état bu leen neex moo tax waxin la rek ni pare nañ waaye du caageen ni si <laughs> janvier wala yooyu parce que promoteur bi tëgg combat kay moom it soxla na ay sponsor def promotion ci combat bi loolu loolu quoi dégg nga ko <laughs> parce que moom mi ngi koy wax léegi di ñaan pour pour fi ci jóge fi ndax xam ngeen làmb spectacle des spectacles dafa laaj public parce que bu loolu noonu la def comme ni gars yi doon diggee champion dafa koy def moom daal di jaral noonu mais na mu ñaan. mu mm-hmm. ñaan na mu ñaan ba pare ñu moytu ñu jël suñu matuwaay ci jàngoro bi. Mm-hmm. parce que na ba naan 3 tey ñu ngi dem ba jàppale ma vingt trente jëm noonu. Hmm. bu ma bëggee combat bi ñu ngi am parce que yéen nit ñi ko laajee ko hmm. mooy bu at bi bëgg ñu am ñu ci teg trois mois ou quatre mois te combat bi amul moo suñu yéene mais nag ci kaw Covid bi jógee sinon dinañ ko def huis clos nit ñi toog seen kër yi ko seetaan jox ko pay per view jox ko pay per view ñëpp seetaan ko. te lu mën a nekk la lu mën a nekk la mais ci kaw bu fi feebar bi na fi feebar jóge daal yàlla na fi feebar jóge waaw léegi loolu daal la feebar bi bu fi jógee combat bi day ñëw taxaw bégay doguma la ci loolu doguma la ci loolu parce que gis na organisation bi ñuy wax lii da ci war a gën a feeñ parce que tey gis na ay lu mel ne FIFA di tëgg wii clos NBA yi yeneen kii yu bari ñoo ngi tëgg da sox soxlawuñu public. ku nekk toog sa kër seetaan ko xam nga loolu yëpp dafay laaj organisation. moo tax comme li may wax chaque fois rek état bi faaw ñu gën ci jàpp. Mm-hmm. faaw ñu gën ci jàpp ba développé affaire yi nga xam ne tey ay yii duñu tax duñu tee bëree. waaye xam nga affaire bi dafa laal ñëpp dafa laal ñëpp. Mm-hmm. par dans mën nañ di ko def te pour fi ku nekk toog sa kër seetaan xam nga droit d'image rek mën nga ci am li nga xam ne mooy mm-hmm. loolu. kon loolu bari waxtu bi pour mu bëri combat. ah parce que xam a soof kenn du ko soobee ah. ñëpp ñëpp ñëpp a koy mais xam nga te am nga neexul entraînement balaa moo neex ñu planifié ko. am na am na benn temps de mois sa kanam bi nga pare jëm foofu noonu. entraînement boo planifié wu sometime mooy lan quoi. day mel ni waxtaan loolu ci suñu biir te loolu ko génn boobu xalaat. est-ce que du jàpp ñu def ko biir loolu. dem nañu ba xalaat ko. ñu essayé ñun tam. mais nag bu ñu sañoon Sénégal ñoom ci fekk toujours ñu ko xool toujours maa baat ñu ngi ko gis. bëri bu ñëpp mais bu ñu demee ba xam ne amatuñu lu ñu def bu boobaa dinañ gën a gëstu. ak dégâts yi booy est-ce que ñu ngi ko bëri ñu ngi ko nangoo supporter ñoo ko bañ. supporter duñ nangu ñu ko bëri. ba tey ñu jaaraan ñu dem ci fa faare bu dëggaat bërëb sabar alay fay ñu ñaan jàmm ci yoon benn question bi rek maam ci góor la góor la waxoon na ci wàllu partenaire ñi nga Ama Baldé buuxloo ñëw ba dégg nga daanaka ma seet ba pare nga war a ñëw ba nekk Ama Baldé ba pare war a teg ci roi des arènes est-ce que bëri mbër mu mel ne Ama Baldé sa première sortie yu yu roi des arènes war ko est-ce que du si ci yow. jërëjëf. non risque moom man gëw ma loolu te tubaab dafay wax sax qui risque rien n'aura rien ah. ah rek. tey am na fooy toll ci làmb fooy bëreel maanaam may essence ak laa koy tuddee quoi parce que boo demee ba yegg ci coppam ndaw la faaw nga gestu ginnaaw loolu la mais du benn risque non non du risque de. damay faral boobu biir bi anam. waaw man kenn a solo asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Penda Ndiaye di nuyu Rajo tey di nuyu Dóor Ba Diouf di nuyu Modou Lo di nuyu Penda Diop ak Penda Aliou ñu nuyu sama yaay góor ba ñu nuyu mbéy si ñëw ba ci yéen ziar mais loolu ñu ko laaj ndax tey jii ñu gis Modou moo raw Ama gars yi laaj ko mais ndax Modou combat bi képp kenn ku nekk bu la liggéey xaalis la mais fi nga toll ci laam ndax xaalis moo tax nga jël ko ndax dootu moom sa morom ndax da ngaa ñëw boo ñëwee da ngaa bañ a dugal loolu combat ñu dem ba si biir rajo dañoo bëgg a xam da ngaa téye su dëgër wala lan nga am ah fàttaliku ma dara woon fu ma ne damaa bañ fàttaliku ma fu ma ne dañ ma proposé Ama bañ fàttaliku ma loolu. non am na fu ñu toll ñu mënul Ama Baldé. Eh. mënul moromu Ama ndax boo bëree ñu mu bëree bëree bu bëree mu convoqué si la bëri daal ñëpp xam nañ ko te affaire baa ngi commencé wut te ñu bëgg ñu nguur dañuy yëngu ko ñu la raaya mais dañoo bëgg lan moo tax nga jël combat da ngaa teel si dëgg. taxaw si kenn ndax gis nañ fan yii moom toog nañ bu baax a baax macha allah ndax kenn gis nañ ko yaa ngi koy wane bu baax mais yu ko def macha allah dafa ñu gis nañu la ñu def mais lan moo tax nga jël combat bi ndax fi nga toll war a teg titre roi des arènes teg ci nga raw ko fuuf lu jël nga raw ko fuuf lu ko jël lan foo ko teg xaalis la wala nga laal ko jël ko jàpp mooy bi nee na bu ko aajee ni ko roi des arènes leeree woon bu ko aajee woon leeree woon noonu puteeral waaw ni ko ayca ni ko wàllu saa yi léegi tey jii bu ko laajte ndaw léeg-léeg woon noonu mu dee tey amaa ma woon boobu. bu mu mën la rek bu mu ñaan yàlla tey léegi nag yàlla bàyyi la ko kanam wala boobu mën la rek bu ko taxawal ko si ñaata wax li nga xam ne bu dee dañ ne bu dee am ci suñu la dina lay wàññi. yow bu mu mën la rek loolu laa jàpp dégg naa ay sotti yu bari mais du ay xaalis moomu ci dugal wala déet non non loolu dafa nekk suñu natt ñun. suñu nattu la nekk ba tax na femmes yu bëri te comme defe naa wax naa ko su ma su ma su ma demee kàddu damaa wax chaque fois su ma yàlla dimbalee jël waa des arènes dama bëgg a wàcc ci booy yi du ma ne xale sax parce que maa ngi ñoom ay marché dama fois dara. du ne fu ñu ko teg nag fu ñu ko teg fu ñu ko teg fu ñu ci liggéey ah xam liggéey sabablu ñaan yàlla may ñu ndam ah mais du fenn fu ñu ko teg day loolu. mooy xalaat ne dana am waaw waaw waaw. mooy li ma la wax daal fenn fu mu koy teg mu dul lu ma liggéey ginnaaw yàlla li ma liggéey foofu laa teg li ma liggéey muy entraînement yi gars yi ñu wàññi ko di ba dañuy ba dañuy dem fàllu leeral mbir mi. salaamaaleykum mbokk yi. salaamaaleykum àdduna. ñu ngi nuyu suñu mbokku béykat yi ndax ñu ñaan teewal mbokk naam ñëpp ñaan teewal ñëpp ñu ngi nuyu di leen ñaan suñu bopp dafa la ñu am. kàddu gi ñu ñu bëgg rek mooy moo yan kàddu ngay dégg brasser bi nga xam ne moom moo tey moom moo remplacer suñu Pape Alioune Sarr ndax yow yaa ngi teewoon mbër bien ah ñi nga xam si ne xale yi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci ginnaaw ay mbër lañ ay xale lañ amuñu mel làmp lu métti te nga xam ne lekkuñu ay mbër yan kàddu ngay dégg brasser pour mu jàppale xale yooyu yoo xam ne ñoo nekk si làmp te amuñu mel métti te yaakaar naa rek yan kàddu ngay dégg brasser jërëjëf waaw waaw président bi CNG ginnaaw bañ ko ñaanalee dafa fekk benn défi bu mu la bu mu war a relever ba tax na li koy xaar bari na mais dañ koy ñaanal yéen woyof parce que lu ñuy yàgg di wax tey CNG lu muy jël dërëm ci mbër war na ko delloowaat ci làmb muy war na di organiser ay combat bu dee sax chaque mois jeunes yi di bëre. parce que tey am na xale yu bari di entraîné te amuñu combat dañuy découragé dem dugg ci leneen ba tax na moom li koy xaar bari na surtout nañu def ay effort pour combat yi di gën a bari ñoom CNG bu ñu mën a tëgg làmb pour jeunes yi di gën a bëri gis ci seen bopp xam nga di entraîné teg te bëriwul tamit neexul bu yàggee nga découragé te bari na ci trop trop trop trop ba tax na moom dañ koy ñaanal yéen di woyof mu relevé daal défi bi ko fi xaar loolu lañ koy ñaanal. merci. ah non non ñoom ñooy def

bi nga nekkee waa des sa soxla sa communication bëriwul te làmb dafa soxla communication te mën nañu xam sa problème ak presse bi lan la est-ce que loolu dina dimbale làmb kanam sa ñàkk communication en plus nag nga war a xam ne combat bi dina bokk sa combat capital yaa Ama Baldé nga jël titre roi des arènes war ko def merci. indi ma fi maa ngi man awuma benn problème presse bi. waaye nit yi dañoo bari te wute man damay wax chaque fois lamb nattu la ci man waaye bëgguma wax dëgg yàlla ay bruit yu bari feeñ yu bari li may wax chaque fois te ku ma xam xam ko ci man ba tax na xam lu ñu may gis ci réseaux sociaux yi sax bariwul waaye tamit dafa am li nga xam dafa doxoon ci diggante bi muy xaw ma combien yi nga xam ni Covid dafa nekkoon xam nga ay sorties yooyu yu bari mënta am xam loolu la daal mais du question xam nga maag ñoo maag yéen ñoo bokk liggéey ñun tey bu nit dugg internet tàppe ñu yàlla ak yéen la a jël seen caméra xam nga ci wala wala yéen dem di taataan ay ay ay ay kàddu xam nga ba tax na man mënu ma dem sans yéen yéen nit mënoo leen dem sans man parce que ñoo bokk liggéey bi waaye loolu kese laa mais wax dëgg yàlla aw ma benn problème ak benn organe de seen ah combat capital ah combat bi yow yaa ko nga def capital xanaa <laughs> ah? ah non làmb la comme li ñuy wax rek wax dëgg yàlla fi ñuy jaar ci làmb defe naa bis moytul gis trop suñu kaw puisque yàgguñu loolu loolu loolu ci làmb waaye am nañ fi tàkkusaan bu nekk suñu tàkkusaan bu nekk événement la moo tax pour man làmb bi làmb comme làmb yëpp la rek mais ay làmb capital ak ay yooyu noonu daal moom tamit kaw ko daal combat la daal comme yëpp rek. bàyyi bii wasaare la am. nga yëkkati sa tubay bi waaye yow kay kay kay ne. ma amoon benn question rek boo xamante ne bëggoon naa ko posé nañ ko muy Ama Baldé dafa dugg ñetti yoon passé def CREF daan bi nga xamante ne mooy euh, bàyyi boy euh, daan bi nga xamante ne mooy Papa Sow daan sos euh, ma yaakaar ni li tax nga jël ko parce que da nga jàpp ni Ama Baldé dugg la parcelle pour bëgg a lëmbe waa parcelle parce que ñi fa taxawoon teg fa tànk Ama Baldé daan nga jël leen est-ce que loolu du risque ci yow parce que tey ñu ci bari leen loolu wax Euh, dafa jël ñaari casquette yoo xamante ne da koy défendre bu njëkk mooy gënabu parcelle te amaat bu nga biir parcelle ñaareel bi nga teg titre roi des arènes jëlee ko Pikine di bëriwaat teg moom Pikine ban gis-gis dina am jaajëf waaw waaw gis-gis bu ma ci am mooy làmb la tey bëri na am na ñu bëri parcelle am dam seen kaw yàlla moo ko dogal loolu waaye ma ne ñaata ñaata yoon laa tere waa Pikine reer tamit <laughs> làmb la loolu dara mer ngeen ndax maa bëree ay jël revanche ndax maa bëree dafa nekk ci suma yoon ma war a bëree moom jël ko waaye incha allah loolu mu defoon ba ba ba ba ba waa passé reer bi incha bëgg naa ko delloo ba jour ba waa Pikine nit ñenn ci waa Pikine nañu reer parce que Pikine am naa fa ay ay supporters yu bëri bëri. waaw waaw gis naa seen xaw ma tere na leer ñaata yoon. ma leen man ñaata yoon laa tere reer ñenn ci waa Pikine parce que su ma bëree Pikine ba pare da ngay foog ne Modou Lo fi la dëkk am na supporter fépp vraiment di ñaan daal incha allah suñu bis moom yàlla ci ñenn waa Pikine bu ñu reer incha allah <laughs> ñenn ci ñëw du ñëpp nag. merci. waaye salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jëfandikoo bu baax a baax di nuyu suñu baaxu frère Bécaye di nuyu ki nga xam ne mooy raay ba ndax ñu wax dëgg yàlla moom fonk la ci làmb dama daa toog sama atelier fi may ñawee di la déglu ci Père Ngagne Ndiaye léegi boo defee lu am solo ci làmb sama xol bi neex maa ngi ci jaajëfal bu baax a baax di nuyu Modou baax di nuyu Modou roi des arènes di nuyu sama papa Père Birame di nuyu Xaarim Gadiaga naanal bi di ko siyaar bu baax a baax man benn question la am ngeen ma ko baale rek benn bi pour Modou la benn bi pour Bécaye Mbaye bi may posé Père Bécaye man Bécaye waaw parce que mën na ñaan jëlu roi des arènes ñu xoolaat bu baax a baax a baax a baax parce que boo dee xool question la rek comme mën nga ko wax ak président CNG mën nga ko wax Matar Tall ñeneen ak ñeneen parce que dañu xool ba bu Bombardier jëlee ci Tyson 25 décembre 2002 jour mercredi boobu ba tey Yékini moo ko jëlaat 2004 ci moom continuer di ci doxal ba 22 avril 2012 Balla Gaye ngay jéem a ci moom continuer di doxal ba 13 juin 2003 2 juin 2003 ba mu continué foofu moom Balla Gaye de Bombardier daan ko ci 8 juin 2014 ba Modou Lô mi jël ko ci Eumeu Sène ñu xool ne temps bi boo dee xool 2004 2002 roi des arènes yi fi am bari na trop est-ce que jotul foofu ñu koy bëri si waat roi des arènes bu mën a jural leneen laa ak leneen ak leneen. ok loolu laa lay posé bu may posé Modou Lô Ama Baldé ci famille wu Balla Gaye de la bokk te gisoon nañ ci yenn ci ay vidéo Balla Gaye dugg si oto naan enmaillé comme si que ne maanaam mi ngi bëri ak Modou Lo ñu lay laaj sa diggante ak Balla Gaye ak sa diggante ak Ama Baldé est-ce que combat bi du revanche tamit dama seetoon Balla Gaye mu ne ma dama xam saraxu Modou Lo est-ce que Balla Gaye boo xamee saraxu Modou Lo te Ama Baldé di rakam combat bi mu métti ci yow loolu daal laa am lu may laaj dama bañ a kii dama bañ a ñëwal yaa ngi yow Modou joxal xaalis ah d' abord. bon. si dans le conseil président de la CNG. non mais après le mois de CNG bees. moo fi waxee dara ba bokk ci biir kër. mën nañu ñu doon comme ni mu mais li ma mën a wax daal comme que CNG bees ñoom dinañ toog waxtaan ci rajo naka la ñuy doxale waa Wassare loolu mooy loolu. encore benn affaire bi parce que su nekk waa Wassare boo ñëwee nag waa Wassare bi dafa war a jeex te keneen du bëri moom boo ko war a bëri moom dara biir man xam nga lamb dafa lamb dafa cat moo tax léegi du bàyyi waaye ko waa Wassare non avantage bi ñoo bëri moom c'est au CNG de clarifier xool ndax léegi arrêté nañu waa Wassare benn waaw di wax kii ak kii benn famille lañ ndax kii yorul saraxu kii comme hmm. ah, dama ne bëriwul jur loolu dara. làmb la bu ñu tëjee barrière yi. incha allah ak ama fay nekk. bu soobee yàlla comme ay yor saraxu kii yor saraxu waxin la rek wax la amul rek pour man du dara. allé ñu def ci benn question bi di ñëw si bopp Lamine Fane KSTV am ñëw. d' accord dañoo posé question merci. maanaam ci mbay yow pour ñu doon ji bii suuf mbay yow fay na donc balaa maa ngi leen maa ngi leen bàyyi la moom maa ngi lay nuyu di la jaar muy biir El Hadj Becaye maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ndax yow ñun génération bi ñu bari bu ñu bëggee làmb bokk nga ci ñuy influence ba ndox mi ko ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla sa jàmm yàgg question bi ma am Modou Lo en tant que roi des arènes CNG la ndax dama gis ne CNG bi su dee produit jëm rek li li ko bëri doon doon mooy li muy tàkk bëri dafa bari ñoom it li doon wax bu bëri mooy CNG dafa am règlement te yéen ñëpp ci règlement bi ngeen tënk. képp ku ñëw di signé contrat dinañ jox sa manager les ñu lire ko kon ñoom it dañ doon teg tool en tant que roi des arènes ban conseil ngay jox bëri pour ñoom it ñu dimbali CNG bii fi nekk ñu tënk ci règlement yi jëm ñu bañ a waaw waaw ñun lu ñuy wax CNG mooy ñun ñoo bokk liggéey bi te ñun ñoo mën a jàppale tey. mais defe naa ñu yi lu ñu soxla bariwul mooy ku ñu jox considération parce que tamit bu ñuy wax acteuru làmb mbëri la munoo jiite dara te boole woo ci mbëri tey te lu bari ñun ay règlement dañ daan jékki-jékki rek xam nga règlement bi règlement bi règlement bële mais loolu passé na xam la mais lu ñuy wax rek muy lépp ñun la ñuy yëgoo ci biir xam nga luy xew muy règlement bi nga xam ne jëm ci mbër yi am ku ñu représenté ko di xam te defe naa moom ci biir am na ku ñu représenté foofu tey ba tax na defe naa daal bu jafe affaire yi xam nga buñ ko tegee ci yoon ku nekk dugg ci gis boppam daal muy mbër bi ak CNG bi ak bépp am lamb waaye waaye règlement kay moom jeexal na wax ñoom ñëpp muy ñun bëri comme règlement moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu tënk faa ñu tegu ci ala kulli loolu kay moom ku ku respecté wu règlement rek ñu rëkk sa dëgg xam na ni daan ji ya daan ji tegu boo deful lii la ci fekk boo ko xamee da nga moytu bu baax a baax xam dañuy def daal. jërëjëf mbokk yi suñu papa El Hadj Malick Kane di leen sëñ bi saa bi di ko nuyu bu a ak ba tey ñu sax. waaye yow waaye laa ko waaye laa ko salaamaaleykum maa ngi leen di ziar bu ñu saa yëpp di gëstu ñu ñu ñu ñu nekk loo xam ne kay mu topp li ko presse yëpp nekk France. comme ni ko gars yi waxee. ba ma ko si dama ko daan wax naan euh, gën a yàq ci diggante combat ak ki nga xam ne suñu mooy euh, bàyyi toog mais li ma question bi ma am mooy euh, dafa am lu toll nii loolu la te liñ naan balaa ngay balaa ngay wax leneen da ngay da ngay waxat laaj bi nga xam ne moom nga seq ba pare sa diggante ak moom ak kii Ama Baldé que ça soit muy ndam wala def nit ñi am na naat ak yeneen jox sa diggante ak balaa parce que ku ne xam na ni deux heures moom ñu ngi koy loolu la laaj ndax bu yàlla ko wane ko war di jàll nekk na ko war nekk na ki nga xam ne si mooy euh, Balla Gaye est ce que diggante boobu war nga koo leeral wala war nga koo leeral. asalaamaaleykum xam nga yow da ngaa toll sa bopp avant nga wax nga toll sa bopp parce que balaa ngaa wax da ngay da ngay xaw ma lan yàgg. loxoti lent bi waaw instant yii ñu ngi loo lent kon tey mënuñu wax dara te yàgguñu ko mais làmb tout est possible. tout est possible. tout est possible. du ma nee du ma bëri kenn du ma lool. waaw lépp mën a nekk. yàlla may dara fekk amiin incha allah. ne dégg naa daal di rek lâché dañu gis ne roi des arènes tey maanaam buñ ñu ñu ko gis ne fi mu war a fi mu la war a fi mu la war a nuyu à cent pour cent bi mu doon laaj ba xam ndax est-ce que yaa ngi ciy bàyyi xel à cent pour cent parce que dégg nga sànq da nga développé ne sa doole rek nga yaakaar du ma seen ci ay ci ay ci ay waxam maanaam demoon na ba xaw a sooxantal côté mystique bu ne xam ne ne làmb tey kenn mënu si génne mystique est-ce que tey yaa ngi yaa ngi xalaat tey fi la fi la fi la roi des arènes maanaam yaakaar yow fi mu fu mu roi des arènes mën a yóbbu ku nekk kay xam na kii ah, ku nekk xam na ku ne xam na ni fu roi des arènes mën a yóbbu mbër am na làmb nag li nga wax làmb rek culture la te lu ci laxasu bari na waaye nag loo sangu-sangu loo naan naan loo takk-takk liggéeyoo boo ñëwee doo doo doo doo am résultat de mm-hmm. pour man ba tax na ñëpp xam nañ ni sport entraînement mooy base bu njëkk bi mooy baas bu njëkk bi bu doon loolu mooy daan bër kon sëriñ si defe naa ngembu seen doom yi ñëw ku ne làmbu ne entraînement ba taxaw gis boo taxawee physiquement moralement côté bépp da ngay ba tax na mooy base bi waaye làmb rek du ñu bàyyi dara xam nañ làmb yàgg nañ ci làmb xam nañ lu làmb laaj incha allah lu làmb rek dañ ko def bu soobee yàlla loolu mooy affaire bu guddi bi ñu naan ñu làmb ko dañoo ëppale ko ñu gën a def saa la xam naa dañ koy yabale foofu rek. waaw pour ñu góorgóorlu journaliste yi ñu jox kàddu ñuy déglu yéen ñëpp dañuy jox kàddu bi suñu père Malick Thiandoum moom suñu doyen la père mu ñëwoon micro nga ñëw ci bëre. waaw waaw waaw waaw gën a jërëjëf Modou maa ngi soog a egg si di déglu bu baax parce que dama nekkoon ci benn liggéey. mel ni su xewee a jiitu laa moom ndax d'abord sama diggante ak nit ko laay ñëpp xam nañu ko jaratul ñu ci njëriñ si sama diggante ak El Hadj Becaye ñëpp xam nañu ko jaratul ñu ci njëriñ si. mais di ma jokkoo ak lui ni ko dama am empêchement mais dinaa fa teew mu ne ma bekkaay ma nga fa man ko bekkaay bu fa nekkee maa fa waaye nag dinaa teew incha allah euh, li ñu dajale fii je pense que euh, dafay rek lever tout équivoque parce qu'il y avait une zone d'ombre autour de ce combat. Il y avait beaucoup de questions et de questionnements autour de ce combat. il fallait maintenant à partir de cet instant lever tous les équipements tous les équipements et puis leeral lépp ci bonne foi ci bokku nit ñi rawatina ci bokku militation climatique parce que li ñu doon wax ndax nit ñi ko nay dina honorer ses engagements est-ce que bi dina am ak am dina am ak am moom loolu moom je pense que parce que présence Modou fii dafay wane rek ni il pris un engagement il a signé un te diggante mag Ama Baldé bu soobee yàlla yeneen tamit dara mënu ko tere ça c'est clair la présence de El Hadj Birame Ndour loolu je pense que pour réconforter wul leneen la réconforter maintenant pour le combat à proprement parler dafa nekk combat bu nga xam ne jarul publicité ndax làmb ñaar ñi lay ñooy ñooy publicité seen bopp. Modou Lo le lutteur plus populaire de l'arène je pense que tey kooku mën ci boole promoteur bi bu ko neexee dëgg na loolu nga xam ne Modou Lo sa partition dina ko jouer te xam ne également waa génération Kareñ waa Kareñ famille ak tous les fans de Modou ak fu Modou Lo mën ci bëree dinañ fa le problème du public ne se posera Ama Baldé est l'espoir de tout un quartier l'espoir de toute une banlieue nekk également xale bu nga xam ne dafa nekk yoon def ay preuve parce que Modou Lo pour nga croiser ko il faut nga def say preuve il nga wane li nga war a wane pour moom mu des arènes en jeu face à un adversaire de la trempe de euh, que Modou xam na ne Ama Baldé nawleem la te dafa bëree xuus jàll ba exécutant la moom li mu xuusee jàll ba yëkkati roi des arènes bi. noonu la Ama poussé jàll ba egg si tableau mu jox ko chance ça va être un combat bu nga xam il va pleuvoir des étincelles ce jour-là parce que ku xam Modou Lo xam ni mu mën a bës xam Ama Baldé xam ni mu mën a bës barrière c'est sûr et certain que les coups vont pleuvoir c'est sûr et certain que la magie de la va se déclencher ce jour-là c'est sûr et certain que ce jour-là, on verra de la lutte pure, de la bagarre, mais également la bataille mystique fera avaler. Parce que nous avons en face de nous deux athlètes très rompus à la tâche, deux athlètes pétris de qualité, les meilleurs de notre génération. C'est pour ça que c'est la plus grande de la kon combat la bu nga xam ne tey coow bi coow bi coow bi mooy rek ñoo xam leen ne combat day am loolu amul nañu ko bu ñu paree ci góor ci amaana ñu jëm. maintenant concernant la personne de Luc Nicolaï beaucoup de bu ñu sañoon ak exclusivité waxtaan ak Luc Nicolaï mais soyons d'abord des humains avant d'être des journalistes parce que l'épreuve qu'il a traversée nécessite un recul l'épreuve qu'il a traversée nécessite une prise de conscience l'épreuve qu'il a traversée nécessite une nouvelle que de la scène compte tenu de tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui parlent pour lui. Luc Nicolai Enko est là avec Raïba. Il y a d'autres gens qui vont monter au créneau. Quand la communication se fera, on communiquera. Mais nous, nous devons faire nous devons faire nous Inch'Allah, combat bi dina am tey combat du ko daal man kay dama ci jaaxal mooy arène nationale ba ñu mën a la bëree ci diggu Pikine moo ñu war a jógee parcelle ñoom Pikine man loolooy sama problème ndax sécurité ba dina doy ndax lépp dina doy moi j'ai peur pour ce combat c'est un combat à très haut risque et il faudrait que l'État prenne toutes ses responsabilités parce que nag nous journalistes nous avons le devoir d'avertir nous devons tout simplement être les conscientisateurs des masses et je pense que notre rôle de de de notre rôle d'avant-gardiste nous permet aujourd'hui d'attirer l'attention de tout le monde combat la bu nga xam ne caaxaan dëgg ko te il faut une sécurité à tous les niveaux parce que Modou Lo du caaxaan Ama Baldé du caaxaan te am mbooloo ku am gannaaw ñaar am gannaaw ku leen boole wala jël toutes les dispositions pour la sécurité merci beaucoup. Malick jërëjëf parce que yow mënunoo wax dara ci làmb nga nekk ci sama coach ndaxte nga jaar yëpp ci làmb succès rek nga ci am. moo tax vraiment ñi ngi am mbégte ci nga fekke li ñu wax fi ay kàddu ah dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moo représenté Luc Nicolaï Djigo ak avant loolu ñu fi jël kàddu laa def ma seen doyen dama leen wax dara rek bi may am âge bi ngeen am ni ñëw dugg ci làmb dama fekk El Hadj Moussa Ndiaye El Hadj Mansour Mbaye Alioune Samb journaliste écrit bariwul woon bu nu ma tey ñett ay mbay sa loo Omar Ba Noël écrit ah ak bariwul woon daal mais damaa ñëw rek seen ginnaaw respecté leen lool lu ma xamul dem ci ñoom laaj simplal ko nag simplal ko fekk fi ñoo xam ne ay Manga 2 ay Mohamed Ali ñoo ni ñëpp après léegi dem nañu ba bëreetul ba beneen génération ñëw ba ñoo dem ba ñii ñu ñëwee dëgg na ñu bëri dañ naan man maa feeñal xale mais aussi xale yi ñoo ma feeñal. il faut ñu reconnaître am na lu ma def ci ñoom mais buñ fi nekkul woon est ce dinaa ko mën a def. dañoo ñëw ñoom tamit am kàll ci li mu wax. xam nga dañuy wax ne sax des ñu ne. mag ñee dàq bëri xale yi. Mm. chaque jour maa ngi koy liggéey ci waxtaan. ma ne leen d'accord pour man xale tey jii ba bëri na mais dañuy mais waxtaan na waxtaan lay doon man ñoom mais génération bu yëpp ci làmb la.